gaay yëpp am benn soog bu am ci kaw yoon am sax dañu wàcceeku yooyu waaw mu garaaw lool wax dëgg soog bu doy waar la wax dëgg am na ñoo xam ne wàcc nañ si wàcc nañ liggéey nii jamono ji waaw ñoo xam ne nit nañu wàcc liggéey muy lu garaaw loo xam daal doy na waar waaw na lool nag wax da moom kay yàlla sëñ bi wax dëgg muy lu garaaw loo daal xam naa ne ci man lool fi mu toll nii si yoon taay fii boo du bay toytu bay laa rek waaw mais dong bi waaye dong na moom itam waaw jël ko na loolu wax dëgg. moom koy metti na wax dëgg moom koy. nañ si def jàmm waaw muy lu garaaw loo xam daal fi mu toll yéeme na lool wax dëgg waaw seen kii suñu doon wàcc na lu door waaye wax dëgg waaw moom kay kii maan la lool wax dëgg oto baa ngi nii waaw ñu ngi nii lu door waaye kéemaan la loolu wax dëgg oto baa ngi nii waaw ñu ngi nii ci kaw yoon bi jamono ji de wax dëgg waaw ñaan yàlla rek waaw lii dafa garab kay oto bi moom liggéey bu doy waar la waaw ñu ngi si kaw tali bi mbooloo nekk kii bi yëpp a ngi fi wax dëgg métti na lool de wax dëgg métti na lool wax dëgg waaye nag def na leen Seydina Mohamed sallallahu taala yërëm rek waaw métti daal métti lool nag xam naa ñaan sa borom wàcc yërëmaat seen kaw rek waaye métti na lool